yëkkati ko waaw damay France daanaka jëru mm. sonn mm. man cause bi yóbbu jamaay France waaw neexuma ah bon waaw mm. mooy Afrique ah. ñooy daje mm-hmm. pour dem foofa ñu def benn euh, liggéey boo xam ne lim ñuy may mooy ñu am avancement boo xam ne wàllu vaccin lay doon wàllu mm-hmm. euh, li ma neexul nag mooy loo xam ne Afrique lañ koy defal te def nañ ko defee Afrique mhm. loolu rek moo ma ci soof mais bu dee li muy doxi muy vaccin dafa bokk ci li nga xam ne dafa am solo mhm. parce que day économiser coût bi état di def ci wàllu santé mhm. da koy économiser parce que le fait que maanaam nga def ay vaccin dafay protéger nit ñi bari ay yenn maladie yu bari du leen dal te maladie yooyu bu daloon nit ñi benn mooy day tax ñuy faatu datay tax tamit état bi di jël ay coût yu metti di ko teg ci kaw euh, maanaam ci kaw nit ki pour faj ko coût boobu nag war a dem ci askan wi Mm-hmm. maanaam boo defee ay vaccin boo gënee avancé ci vaccin surtout que projet boobu am solo la jomaay di wax ci affaire Institut Pasteur mm-hmm. boobu bu jàllee dafay mën a tax askan wi feebar du leen yombati bu leen feebar yombut mm-hmm. maanaam lañ doon fajoo dem ci seen i poos te état bi tamit maanaam coût bi mu daan def ci médecine day wàññeeku day wàññeeku léegi nag li ci gën a neex nag mooy ñu bëri dañ na jomaay dem na France dem na France jomaay demul France demul France waaw la ba tey rek Macron bi nag bi gisante waaw non xam nga dafa dajeeg Macron Afrique. Mhm. Macron ne ko kaay ñu gisee sama palais ñu waxtaan. parce que boo déggee man la Afrique la dem mooy. Mhm. maanaam yëfu Afrique xam nga Mauritanie la dem. Mali Niger ñooñu nag mu doon dem ak ñi mu invité woon ñu ñëwal ko fii. Mhm. ñooñu ñoo ko ne nan dem France ci benn salle conférence maanaam Euh, defi fa nangam mu hmm. ànd ak ñoom mais du moom moo jël initiative rek comme ni ko Macky Sall daan defe hmm. maanaam seeti saa bàyyi Macron <laughs> ak nag papa nangam ak nangam loolu moom Diomaye def ko hmm. te li la koy wan mooy Diomaye Macron da ko demandé ne ko dama bëgg nga ñëw ndékkee si ci man ndékkee si dégg nga man dama doon demandé mu woor ci man mu ko ko waaw bu fekkoon kay ci moom la jëm si ah kon kay du ko demandé ah, ah, ah, pour ñu gise léegi nag demandé ne ko accordeel na ko gise nañ Mm-hmm. amul problème nag Diomaye dem France. Mm-hmm. awma ci problème parce que France pays la bo boo xam ne. Sénégal war na faa mën a dem. parce que bu fekkee ci ay intérêt la nekk intérêt yooyu. Mm-hmm. yi Sénégal bu nekkee Russie bu nekkee fu mu mën a nekk dañ kaa war a dem jëli ko. waaye ñu bind ci suñu xalima rek ne président Sénégal. toog na fi ba tey jii may wax ak yow maanaam sologul dàllam dem France. dem France waaw. loolu na ko ñëpp xam. loolu na ko ñëpp xam te loolu la tax ma koy wax Bassirou jomay bi mu démé paré bi mu mhm. démé France. Mhm. ambassade France ba nek ambassade Sénégal ba nek France. waaw fa la dem fanan sakkan mo ñam andal mo ñu andal ñu jël ko nak ci loolu nag danañu wax né ñun juumuñu. juumuñu waaw. Mhm. parce que Amadou Ba da doon xëccok jomay ñu jox ko jomay bayyi fa Amadou Ba. Amadou Ba voyage bu mujj. bi mu demoon Paris. mi nga andon ak 27 personnes. 27 personnes jël hôtel. fay fa lu mat plus de 300 millions. ci ñetti fan ci ñetti fan waaw. jomaay dem fa nag fayu fa sax 3 millions moom ci ñetti fan. <laughs> waaw ñaar ñooñu nag looloo leen wutale. Mm. te nag suñu waxantee dëgg. yow mënoo yor pays boo xam ne vingt cinq pour vingt cinq dernier yi gën a du ci àdduna bi. Mm-hmm. ci nga bokk. vingt cinq réew yi gën a pauvre. ci la mm. sa réew bokk. a ba noppi nga dem France bëgg faa jël hôtel ba gën a. riche mm-hmm. loolu day wane ne kon xalaatoo dara ci askan bi bi nga bàyyi seeni coono. Euh, lan la ñuy dund. loolu xalaatoo ko parce que boo ko xalaatoon. Mm. doo dem foofu di ko def noonu. ba pare tamit ñun ni ñu pauvre. Mm-hmm. maanaam France ni mu ñu rawee ak yenn pays pays occidentaux yi ni ñu rawee ci wàllu économie. Mm-hmm. ba pare suñu autorité yi ni ñu bëggee raw autorité. France ci wàllu économie. maanaam mm. loolu dafa àndul. dafa àndul vraiment. Mm-hmm. moo tax kontaan nañ. man de jomaay daal Mm. ak lu waaye mën a wax ba ci costume africain bi mu solo costume africain bi waaw ba ci soxnaam ni mu solo soxnaam ni mu soloo saag bi jënde woon ko fële man daal saag bi xaw ma fu ñu ko jënde <laughs> waaye col gi rek da lay mm. wax ne kii Afrique la jóg mm, couleur yi rek day wax mm-hmm. waaw couleur yi dafay wax solin wi dafay wax ba ci façon masoor bi masooroo sax boo dee xam nga image ah di nga xam ne lii maanaam dafay wax parce que nu mu tudd mari soxna ci mari euh, parce que sama xarit bi. Ah. sama xarit la de. de ñaar ah, euh, ñep de. no wa way nak mari mom sama xarit. mari sa xarit wa mari mom sa wax deug yalla sama xarit. sa xarit la waaw ci koor gi rek jox na ma fataay bu neex ak ndogu lu neex. ah am njaay dëgg yàlla njaayeen la ko jox kay. maa ngi yalla ñaanal yàlla ah. maa ngi koy ñaanal yalla yalla sam ko. yalla sam ko mom ak euh, borom kërëm ak njabootam yëpp. yàlla sàmm leen aar leen. defal leen xew yàlla saa yu ma demee kër jomaay moom top top baax xam nga nag moom patriote la. patriote pire pur waaw ah, patriote gi nag maam moo tax mu fonk ma mu fonk la ca dëgg dëgg saa yu ma demee kër jomaay vraiment day bàyyi léppam mhm. maanaam ne ca man macha allah yalla nga gën na jàmm yàgg loolu loolu maa ngi ko ci sante maa ngi ko ci gërem diko ñaanal yalla rek euh, seen togaay bi yalla def mu jig leen lool amin amin amin amin parce que mhm. ak lo ci mëna a dégg daal mhm. gis nga ciol gi jomay sol waaw lolu waxna lu bari hmm waaw sol gi soxnam sol wax na lu bari hmm. doxali ba doxale ay tek loxo yoy sax amul solo hmm. mais la fait que rek manam ni mu solo mom dafa am lu bari lu ci luñ ci mëna xol hmm. voilà légui nak ah. takul montre bu seer takul mom dal mom dal lu mat day feñal lu matul lu feñal lu matul waaw ni xol rek mais si suman yi doon wax naan jobay amul charisme nak bin ak bu jakarlo ki Euh, Joe Biden ay Macron yooyu bi ja jàkkaarloog Macron ñoom ñoo gën a faible sax ñoo gën a. waaw ñi ko doon wax ñooñu ku leen gën a ñàkk ab charisme ci penc mi. Mhm. waaw ñooñu jëm mooy loolu ko hmm? waaw ñooñu jëm mooy. ku xeeb ku xeeb sa charisme ba loo am maam jaay sa fon lekk ko. <laughs> Euh, Hmm? <laughs> may nuy lat jóob ak busa këcëb ah, ah. ku ku xeeb sa charisme ba loo am dem ci maam Ndiaye sa xaalis ah da nga da nga fa am ah, dem ci maam Ndiaye Safon ngir ñàkk charisme bay wuti charisme mais maam waroo ñoo jàngal sénégalais yi naan kii am na charisme hmm. ak amul charisme parce boo xamoon charisme yow doo dem ci maam Ndiaye Safon pour am charisme mais maam Ndiaye Safon li muy def dafa baaxul wala mais du charisme góor du charisme góor du xeesal moom sëñ bi xeesal moom ci ku ñuul la gën ci nit ku ñuul ci boppam kuy xeesal <laughs> maanaam. furtiku hmm. nag naan da ngay di woo xeesal quoi. léegi doon ñëwoon ci nuyoo yi nag xam nga <laughs> xaaral ma ci nuyoo jomaay yi quoi presque que gis ne. Ah. dafa mel ne dafa jël matukaay non man yooyu ci taxaw. non benn loxo lan joxe. non loolu garaawul. waa ji joxe benn loxo. Macron joxe woon ñaar joxe en tout cas daal jomaay na sénégalais yëpp xam ne. Hmm. dem na Paris. Hmm. doxalin wam fa doxalee. nun dañoo am. leader. leader bu tudd Ousmane Sonko. Ousmane Sonko. mu woote ci benn procès. Mm. procès bi la koy firndeel boroom xam-xam bu wootee ci dara da koy bind. da koy bind muy livre solution. solution solution boo fa demee. Mm. première la def numéro un. Mm. muy li Sonko njëkk a ko mu wax. patriotisme la woote. patriotisme patriotisme nag. maanaam Ousmane Sonko dafa wax ne. dafay nekk ci militairement. ak sportif. ak culturel. culturel doo ko jëm ci économie. Mm. militairement. Mm. mooy nga nangu sol tenue deewal sa réew. Mm. sportif. mooy fu nga sol sa mayo. comme Sadio Mané ak ngay xeex pour sa réew di am am ay ndam. loolu mooy sportivement. culturellement nag daf cee bokk. réew mi nga jóge ngay sol ngay dem bañ a dem fenn. ñuy yëg ne yow fa nga jóge bàyyiwoo fa dara. luy nuroo culture. luy nuroo culture le maanaam culture Sénégal moom ak soxnaam indi ko rek. Mhm. loolu dafay wane ne la Ousmane ko woote woon. Mhm. ca livre solution ba. Mhm. moom la Diomaye di appliqué. te Diomaye moom damay wax ne balaa ngaa rafetlu ay waxam. nañ dem solution. ñu xool lan la fa Sonko waxoon. balaa nga ne lim def du yoon. demal solution nga xool lan la fa Sonko waxoon. maanaam dafa mel ne Sonko moo bind Diomaye mooy tari. mooy tari voilà parce que acte yi muy ma a yëpp. Mhm. saa boo xoolee rek livre bi rek da ngay gis ne acte bii loolu la te am na ci lu xëkkmaa nag loo xam ne tamit nañ ko bàyyi xel mooy patriotisme mhm. mi ngi nekk ci passe onze passe onze la onze ci mhm. lañ jot première baril pétrole baril pétrole xam nga boo jëlee sax un boobu un bi nga xam ne mooy première boo demee bañ ba bindu patriotisme day def un daal def patriotisme un boobu ak onze bi ci paas bi. waaw. ah. waaw kooku 111. 111 lay ñëwaat. nga xam ne maanaam <laughs> boo xoolee euh, maanaam candidat patriote yi. Mhm. boo demee ci téere patriote yi 111 la fay taxawee. 111 la fay taxawee. ah oui patriote rek waaw kon noonu asaar amut. asaar amut waaw. Hmm. waaw président Diomaye daal kon yar na fi ak. noot nañ bu yàgg. Ah, maa ñaanal sama bopp. Mhm. yeewi sama bopp.